aousubillah bisimillah inna waliyallahu jërëjëfati Serigne Touba ki jara am maam Cheikh Ibrahima Fall Lambaol Mouridina gàcce ngalaama Serigne Afia Mbacke Falilou jokko jël Cheikh Ahmadou Lamine Bara Mbacke Afia est-ce que Serigne Touba maa ngi ziar mbokku taalibe yëpp di nuyu soppe yi am di jàmm yi di ñaanal Serigne Mountakha Mbacke sunu borom yàggal ko fi mu yàgg fi tànn ak wér di ko ñaanal baax Serigne Cheikh Jëmm Fall di ñaan suñu borom saxal ko mu yagg fi noonu la ñuy ñaanalee sunu wayjur yi sama ñaari wayjur yi ak sama tante yàlla suñu borom saxal leen yàgg fi te ànd ak sama mag ñeex ñëpp ayuma kenn dellu di jël nuyo di ko jox sama papa Cheikh Mansour Kassé moom Serigne Moustapha mu Samba di ko ñaanal suñu borom wéral ko di nuyu sama Serigne sama xarit sama mag Serigne Abdoulaye Diop Xaas di ko ñaanal suñu borom wéral ko te kàttanal ko tey mottali yéenam ci doomi aadama yi bu baax a baax a baax di jël kàddu yu dina ko delloo soxna si. Mm-hmm. Euh, bëggoon nañu xam nag kan mooy Aliou ndax nee naa leen léegi kenn dootu ko présenté ti waaye bëggoon nañu xam sa jaar-jaar bu ma la laajee Aliou mooy kan ana lan nga may wax. waaw Aliou moom defe naa ni xam naa ni lépp luñ ci wax rek lu ñuy dolliwaat la ndaxte ku nekk xam na ni. boo ne Aliou ne Afia xam ne sëñ Afia Mbacke moo waral loolu teg ci it mooy koo xamante ni ndongo daaru laa di taalibe di liggéeyal Serigne Touba sax ci nag yem ci kepp juddu ci famille boo xamante ni famille artiste lan sama yaay nekkoon woykat sama papa nekkoon acteur film donc man ma ñëw tàbbi ci famille boobu samay mak nekkon ay eh, batteur ci ballet national Daniel Sorano sama yaay aussi eh, way woykatu eh, ballet ba théâtre national Daniel Sorano nekkon fecc kat bi donc yoron danse bi sama papa euh acteur film bu théâtre national Daniel Sorano tay nak man ma judd way suñ suñu borom dimbali ma ma ne ci li di liguel Serigne Touba ci walu art yi nga xam ñom ci lañuy yëngu man ma ne ci benen fànn gi donc xeyna fala falaa tay euh ci liñ nane donu donu ko ci sama waajur ci walu bima nek mais euh Aliou dama lay laaj ndax euh, lolu nga wax legui ndax lolu nak nekul lu yomb nga judd ci famille bo xamanteni ni sa papa mu ngi nekkoon euh, acteur diriger euh, ay film mm. sa yaay aussi nekkoon danseuse du noonu mm. nga dem ba legui di sikar nek xale bu ndaw mu don nga top yoon boobu lan mo la duggal ci sikar bi nga sikar wa sikar mom li ma ci duggal amour la benn beneen bi mooy sama jàpp ni euh, Serigne Touba moo ma fayee moo ko fayee sama wajur ma tax ma dugg ci parce que bu weesoo jamono yi nga xam ne daan naa topp mbokku taalibe Baye Fall yi ñu daan màjjaal di canti ma daan leen topp ba ñu sori it de part ndax man ku ne xam na ni laa ilaha illallah dafa dafa doon ci lu lu lu dafa bokk ci li luy dundal sama deret voilà donc ginnaaw loolu sama papa maa ngi wax naan di ko leeral jàmm ñi toujours Serigne <clears throat> Touba rek amasoon a feeñu bi mu ko feeñoo ñu naan ko xool ko nu mu durux rasulullah voilà donc bi mu xëyee dem tuubaa di ko nettali kenn ci njabootu Serigne Touba yi kooku ne ko laa jugal gaaw nga daw ci barab daw dem barab ba te boo demee ci barabu Sëñ Tuubaa bi boo koy ñaan bu ko ne may ma ne ko jox ma ndax yow dalaa war dalaa war a bàddil moo tax bi mu demee it li mu ñaan ci Sëñ Tuubaa moom xamal na ni Sëñ tubaab ginnaaw bi mu ko ñaanee loolu sama jëmm ji la ko Sëriñ Tuubaa fay ci ñaanam googu kon donc muy ñaar yu daje ci man yoo xamante ni li firndeel li waral ma dugg ci sikar si loolu ci la macha allah macha allah dafa ñu gis ni euh, màggal gi mu ngi jub si. nga am way wu doy waar woo xamante ne ni euh, sikar nga ko macha allah xool yëpp daal di féex yow nga ni màggal gi day am ren bu dee euh, dem Touba mooy yóbbu suñu ruu yi. Mhm. ñu dinañ dem Touba jaare fa dem Bakia te bu yàggul dara ñu gis benn kilifa boo xamante ne génnoon na wax ni carrément euh, moom du dem Touba ren donc ñu bëggoon xam woy woowu ndax yow kilifa googu ngay tontu wala bindoon nga ko bien avant. avant boobu wala lan moo la inspiré. man kilifa la. Euh, maître El Hadj Diouf. <coughs> maître El Hadj mon booy bi dama ko bind avant bi bind naa ko depuis depuis mois de mars mars nag booy bi di cax bu jiitu ay di cax bu méngoo ay wax di tontu boo xamante di baat boo xamante ni dafa tontu ay wax ak ak jëf jàll parce bu nekk xam na màggal bi rek moo desoon ci événement religieux yu ñu annulé wu boo fi dégg annulé nañ ko yow nag coronavirus donc mel ni màggal tubaab moo fi desoon ci yu ñu yàqul donc moo waral ci sama biir wax boo déggee ma ne gaa yaa ngay lal ay mbir ngir fomm màggal gi waaye Sëñ Muntaxa bañ na màggal gi day am ren te màggal gi dana am ren te dana am déwén. waaye bu fekkee dem màggal moo yóbbu suñu ruu yi ñun dañuy dem Touba jaare fa dem bàq ya li ko waral mooy corona balaa bu yàlla wàccee na teg ciit ñun yàlla ñu fi wàccee teg ñu fi ngir ñu koy jàmm te nattu bi mu fi teg dañuy ñaan toujours ngir mu ñu koy teggil waaye tooguñu pour tëj ay jàkka ki tëji jumaa nan dañuy topp système système de la santé pour faj dindi fi virus bi ndax loolu mënu ko fee jëlee te pexe bu ne jël def nañ ko fi taxul loolu jóge fii boo bàyyee xel bi ñu ubbee jumaa yi la coow li la la feebar bi commencé wàcc Sëriñ tubaa nag li Sëriñ Muntaxa Mbàkke wax yàlla na fi yàgg te dañoo gën a xam suñu bopp gën a xam suñu bopp boobu moo tax teggul tàngam ci màggal gi ndax màggal gi dafa bokk ci li tax yëf ki war a fee jóge te dama naan ñi fi nekkoon di ay noonu Serigne Touba ba tey ay seeni sët a ngi fi ndax bëri na ñoo xamante ne tey bu ñu soñoon màggal gi du am waaye màggal gi dana am ren te dana am déwén El Hadj Diouf moomu nag bu nee du dem Touba daf ñu noppal. ndax koo xamante ni yow ba ngay màggal si ñëw yi nga naan ñëw sax kenn du ko ndax amoo riir defoo benn bruit yow yow mën naa ne contingent wu saret yi ñëw di liggéey di delluwaat mhm. ñoo la ëpp riir yow booy ñëw kenn du la escorter kenn du la topp kenn du la jiital kenn du la xaalil yoon donc mën nga ñëw tubaab ba ñibbi duñ yëg sax yaa ngi ci dëkk bi waa kooku bu toogee lu ñuy njariñ kooku ñàkk ñëwam sax mënoon na ko nëbb ndax nëbb ko mooy li ko noppal ndax ñu xam nañ ni xaaj bi gëmuñu sëriñ tubaa ñoom génération boobu parce que ku gëm sëriñ tubaa ak li la sëriñ tubaa defal même boo dul màggal si ndax feebar sax nga nga nëbb ko waaye di ko fësal ba toog ci écran bi naan màggal liw ma yàlla na yem ci moom màggale ma boobu ñaa màggaliwu ma boobu moi mm. na yem ci moom dong te ngàlla bu ñëw ndaxte ñëw ga amulul njariñ yow boo ñëwee kenn du la yëg pour nga ziar xalif général da ngay buuxante ba sonn motaar daru la bàyyi faal yi topp ñu la di sikar yow boo ñëwee kon yow ak sa tooga yam pour yow bu yow yow berndey sax yow doo ca boo sàgganee doo ca lekk kon nag mun na faf toog man loolu laa koy wax te bu beneenee bu ñuy wax ci lu jëm sëriñ bi mu noppi ndax loo amul wàlla da nga noppi bu ko sëriñ Touba jaral mu joxe bàkkanam na toog ñun jaral nañu ko te si koo xamante ni boo da faatoo Europe ñu jële la Europe indi senegal jege Sénégal jangi-jangee yóbbu yóbbu yóbbu yóbbu yóbbu waaw kooku bu demee Touba faatu fa du noppalu da noppalu bàyyi faale yi jagat jagade doo sax yéeg oto dañ lay eh, juróom-ñaari mètre percal rek sikar ak sikar ba baaxee jébal ko tedd gi ngay am mbégte fi nga tëdd moo tax ma ne nag bu fekkee dem màggal moo yóbbu suñu ruuy ñun danañ dem Touba jaare fa dem Mbàkke te biir na ma ni Serigne Touba du ñu indi ci màggalam gi di seetaan feebar di ñu fa am déet noonu la demee. <laughs> waa Sorano ma dina am ren. Sorano. Mhm. Euh, empêchement bi mooy pour mu am ren dépendrul ci ñun mu ngi dépendre rek pour ñu ubbi saali parce que bu ñu ubbee saali rek suñuy événement tàmbali tëjoon nañ ñu nag bàyyi musiciens yi di tëgg ndaxte bi ñu tëjee Sorano fii am na fi musiciens yoo xamante ne ci télé bi la toog di def xaw ma jàkkaarloo xaw ma nakam nan live xaw ma nan c'est c'est xaw ma nan nañ ko tuddee donc ba pare ne dañuy bañ mobilisation woykat toog këram woo ay tëkkatam ak ay awkatam jan toog ci télé ñu koy filmer kenn ngaangu ci kenn waxul lu ci jëm